aw bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi man la Marietou fii ci saveur planétaire maa ngi ñëw nii tey incha allah euh, doon leen indi suñu benn ñam boo xamante ne ginnee la cosaanoo comme ni ñu ko waxee saveur planétaire dinañu wër fu ñu mën incha allah lépp loo xamante ne que xam nañ ko. bu neexee yàlla ñu indil leen ko daal di leen ko tegal euh, ci seen table comme ni koy baaxoo di waxee donc tey euh, saxa saxa la ñu fas yéene defar euh, boo xamante ne nag feuille de patate douce lañ koy toggee mu ngi nii muy sweet potato leaf xob yaa ngi nii lii nii benn génn jën la kaani gaa ngi nii sumbra netetu bi xam nañ ko lii ñaari doggu géej la lële kànje la kii suñu kaani cuq na bu ñu ci fas yéene tàbbal huile de palme baa ngi oil bi

jël jën bi teg ko ndànk mu ñëw fekk si euh, yàpp bi moom tamit euh, bismillah bismillah mbokk yi ñu dellu si euh, ci suñu soos saxa bi mi ngi nii jën bi tëmbal nañ ko moom tamit dugg na nokkas nañu fii suñu soble bi ak suñu kaani bi ak tomate fraîche bi ñu ngi ñëw dugal ko léegi moom yëpp lañ ciy def incha allah su ko defee ñu bàyyi yàpp bi fi mu ne nii macha allah tiit na ba ci kanam tuuti rek mu gën a jàpp forme daal di seppi jën bi daal di jël suñu smoke fish bi tëmbal ko ci ndànk commencé dem daggati suñu feuilles yi nale euh, préparé ko ak euh, diwtiir bi ak suñu netetu sumbura bi ñu ci waaj a def gejj bi ci kanam tuuti incha allah lañ ko ci fas yéenee def. Euh, bismillah bismillah mbokk ñu dellu si waat ci suñu saxa saxa sweet potato bi sauce feuille de patate douce léegi génne nañ suñu jën ñi ngi ñëw gis ngeen nii feuille baa ngi ne la ñuy dagg mais dañuy ñëw ndànk teg suñu pom bi parce que pom bu dëgër la daal di teg géej bi ndànk ñëw jël kaan yi tamit teg leen ndànk xaar mu ñoraat tuuti ñu jël feuille yi def ko ci incha allah voilà donc euh, dugal nañ suñu yeneen ingrédients yi génn nañ jël bi. Oh, bismillah bismillah mbokk yi dellusiwaat nañu fii ci saveur planétaire di ñëw. Euh, ci suñu saxa saxa gis ngeen nii macha allah euh, ndawal bi jàpp na forme fi mu ne nii génne woon nañu jën bi kongi dugg na léegi suñu feuille yi man feuille bi duma ko baxal à part fii laa ko indi directement donc raxas nañ ko ba mu set ba dagg ko nii feuille baa ngi nii di ñëw dugg si léegi incha allah voilà mooy suñu feuille de patate douce bi léegi bu ñu demee ba feuille bi euh, wàcc moom tamit ñu daal di ci def suñu diwtiir bi palme oil bi mu ngi nii daldi jël nag suñu sumbala bi daldi ko ci def ndànk daal di jël suñu euh, kànja bi teg ko ci ndànk mu àndandoo jóg moom tam ak kànja bi alors bismillah bismillah bi def nañ ko ci léegi okra bi teg nañ ko ndànk ñetti tuddi sumbala bi yegg si na donc sauce bi dañu bëgg mu ferme dañu bëgg mu ferme fer ba wow koŋ ñëw ndànk jël suñu di ko ci leen nag di def ko feu doux bàyyi leen feuille bi ndànk ci suuf méttitu sumbulaa bi ingrédients yi ñu ci def yëpp di dem ndànk ndànk ci suuf incha allah ayo bismillah mbokk suñu soos saxa saxa mi ngi nii suñu pétrole live bi feuille yu patate douce voilà gis nga jën yi tegaat nañ ko ci nii ndànk mën nga léegi dañuy ñëw defar suñu ñànkatan boole ko am moom allah mun nañ defar tam tuuti fan boole ko ak moom ayo bismillah fii ci saveur planétaire tey euh, sara sara lañ leen indiloon euh, ba Guinée Conakry lañ leen demaloon incha allah di fàttali mbokk yi rek euh, pour ñu abonné ci suñu chaîne YouTube daal di cliquer ci belle bi nekk foofu cloche bi bu ñu ko cegee incha allah lépp lu duggati rek ñoom dinañ ci njëkk a jot ayo bismillah